a yoof économie maritime parce que village de pêcheurs c'est si donc loolu ku ne donc il faut absolument suñ tank tànk bobu tànk nekk bu tank bu ñu fulla war a ku ne yoof tamit ni cité religieuse comme ni nane Touba cité religieuse comme ni nane naan cité religieuse comme ni nane Niassène euh, fele euh, Niassane comme ñu naan euh, euh, euh, Taïba Thiénaba exactement donc c'est très important de dooleel Yoff sur ce volet là parce que loolu dinañu jox benn visibilité bu mag boo xam ne si dina mën attirer waaw lépp lu bëgg fii Yoff suñ si jëlee comme pilier aussi comme niñ koy jëlee si wàllum pêche ku xam s'arrête, nag xam ne tamit mbirum jang, mbirum xale yi mbirum xale yi ak mbirum

créer les leviers qu'il faut manam fexé ba nga xamné dinañ créer conditions pour attirer fonds yi ñu mëna am yépp euh, par rapport à nos réseaux par rapport ak sunu euh, sunu ñi ñu xam ak seen jang ak seen lepp lolu lañu wara war a créer et niñ koy créer moy moy lolu ça veut dire que du xam nañ maire ni mu démé xam nañ bari wuñu nonu alal mais man nañu créer les conditions pour fexé attirer le plus d'investissement possible et puis surtout au niveau social ak yëpp topoto dëkk bi partenaires yi nga xam si aussi yàlla dimbale na ma ma xamanteeg ay nit ñu bari waaw euh, na am yu bari mais Yalla ma ay réseau yu bari loolu tamit dinaa a fexe wax nañ ma problème handicapé c'est vrai c'est un problème au niveau national parce que handicapé même pour dox sax problème donc nañ leen bàyyi xel tamit lenn rek laa mën a mooy intérêt yoof dinaa si xar sama kamtalaay kartam waaw dinaa ànd ak waa yoof lépp lu ñu war a mën a am incha allah dinañ ko ñafe indi ko yoof incha allahu rabbi